Euh, loolu nag euh, yaakaar naa ni lu ñu mën a waxtaanee la tey ndax itam euh, bokk na ci li yëngal yenn réewi Afrique yi mbirum ñetteelu mandat wala bëgg ko jéggi sax ñedd nguur ga professeur Mansour Aw ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci démb ak tey. jërëjëf Fatou Thiam Ngom maa ngi lay fay di nuyu suñu mbokk auditrices yi di nuyu itam suñu mbokk. auditeurs yi les fidèles euh, auditrice ak les fidèles euh, auditeurs. Mm. de la Rewmi FM. ñu ngi lay gërëm bu baax a baax ci disponibilité bi réew mi moom doo fi gan euh, démb ak tey rawatina yàgg nañu waxtaan ak yow mu gindi aussi ñu baree bari ci li xewoon démb ndax euh, jàngalekat nga euh, waaye itam gëstukat nga historien di itam jàngale histoire alors professeur Mansour Aw <coughs> réew mi tey yëngu comme yeneen réew Afrique yi ni ñu yëngoo ay crise politique waral ka bu ñu delloo démb xëy na sax lu jiitu indépendant violence est-ce que euh, Sénégal euh, mus na dund lu mel ni li fi xew tey ñu dem démb bala ñuy ñëw tey fan lañu ñu mën a tàmbalee wax ni kon lu mel ni euh, ca la ca la dooree ci réew mi. xam nga li xew nii euh, violence politique la waaw violence politique nag moom nekkul lu bees ci réew mi. yàgg na ci réew mi yàgg na itam ci réew Afrique yi bi ci sax réew Afrique yi rek dafa yàgg ci àddina bi ndaxte eh, boo seetloo phénomène euh, violence dafa nekk loo xam ne lii dafa taqoo ak nit ki ak euh, l'histoire de l'humanité lu lu yàgg la ndaxte diggante nit ñi dafa bari ay enjeu dafa bari ñu ngi xëccoo ñu ngi xëccoo nguur ñu ngi xëccoo espace vital ñu ngi xëccoo lu nekk loolu nag mooy indi violence loolu yàgg na ci histoire de l'humanité ñun historiens yi euh, xam nañ loolu bind nañ ci euh, sociologue yi itam xam nañ loolu anthropologue yi itam xam nañu loolu li xew nii mu di violence politique dafa yàgg ci réewu Sénégal euh, ñun li ci jot xam directement mu di lu ñu vivre sax directement moo di taawu Lamine Gueye bu SFIO mm. ak euh, président Léopold Sédar Senghor doon BDS avant ñoom ñuy def fusion créer Union progressiste sénégalaise avant loolu muy am mm-hmm. ñoom ñaar seen parti yi mu di SFIO wala Leddi doon sol ay mbubu xonq eh, jigéen yi doon sol ay ndokket yu xonq di yore ay soccu jigéen yi ñi féete ak Senghor wa BDS di sol ay mbubb yu wert yore seen soccu ay mbusoor yu wert ñam ñii di solu ñii li di solu ñii à chaque fois rek bu ñuy amee ay meeting wala ay réunion ñii faral di ñëw di yàq seen seen jotaay loolu moom yàgg na ci réew mi man lu ma fekkeel sama bopp la ndaxte ñun fi ñu dëkkoon ci Faas dafa nekkoon euh, quartier boo xam ne bii quartier bu yëngu la quartier bu yëngu la sur le plan politique ñoom ñëpp amoon nañ fa ay base ay militants mu nekk loo xam ne lii dañ ko vivre directement donc loolu moom nekku fi loo xam ne lii lu bees la. te itam lan moo koy lan moo koy provoqué lan moo koy waral ci ci cas yi gën a bari yi. waaw xam nga diggante Senghor ak Lamine moom. ñoom ñaar xam nga ñoo àndoon mm. Lamine moo indi Senghor dugal ko mm-hmm. eh, eh, mu nekkoon son colistier mu def ko ci li ñu tuddee second collège second collège mu di collège les indigènes ñu leen tuddee les badolo moom Lamine nekkoon ci premier collège mu di eh, collège les citoyens mm. citoyens des quatre communes mujj bi Senghor nag am doole boo xam ne bii weesu na lool doole la liggéey te xam nga nag ñongante dafa yàgg ci diggante nit ak nit ci wàllu politique jogante dafa ci yàgg waaw responsable yi ñoom faaw ñu am ku nekk daal diirante mbagg bi tooñante beeg yooyu a chaque faw ay élection amee dafay am ay tension politique bi PAI yi itam Eh, ñiko ko sos mu di Majmout Diop eh, mu di itam eh, ay personnage historique yu mel ni Madické Wade ci Saint-Louis mhm. mu di ku mel ni Samba Ndiaye sociologue ñeemi na maître Babacar Niang ñeemi lii Tidiane Baydi ñeemi Seyni Niang ñu doon ay militants très engagés ñoom seeni jamono yitam mu nekkoon gauche révolutionnaire hmm. te boo nee gauche révolutionnaire rek dafa ànd ak contestation hmm. Hmm. syndicale contestation euh, politique dafa ànd itam ak souvent utiliser des moyens violents pour accéder au pouvoir waaw loolu mu Euh, lu taxawoon ci diggu ci biir PEA yi ba mu am ñoo xam ne ni dañ ca beddee ko woon formé yu ñu parti communiste sénégalais. est-ce que violence yooyu daan na am ampleur kom yu tey yi. ah déedéet amul ampleur <laughs> comme tey de. amul woon toj amul woon yàq. Ah, ah, ah, doon na am sax ay ay xeex eh, dana am ay xeex waaye ay ay qui sont circonscrits. waaye bu fàttalikoo événement 1963 moom diggante pra Sénégal ak ak Senghor foofu moom dafa am ay ay ay ay moor ñi ci dee bari nañu ñu ñu ngi naan élève événement centenaire ñu ngi naan am na ay plus de cinquante morts mm. donc loolu moom euh, euh, lu ñu mën a nettali la ndaxte ñun fekkee nañ ko vivre nañ ko directement bi ñuy rey El mu doon euh, ki doon diriger comité d'action waa union progressiste sénégalaise bu euh, Léopold Sédar Senghor loolu suñu kanam la diggante pra Sénégal ak euh, Léopold Sédar Senghor ak UPS dafa nekk diggante bu bu tàng xeex ndaxte jamono yooya démocratie dafa tooguloon comme li mu toogee tey jii. liberté de presse amuloon comme li mu amee tey jii liberté manifester sax amuloon de sorte que euh, pour mu am violence dafay yomb dafay gaaw ndaxte rek boo jógee euh, pouvoir moom itam jóg loo wax mo dàq ko loolu moo di indi confrontation yi ba loolu moo waa ñàkk démocratie moo indi woon contexte boobu te itam nag 63 ñu contesté itam les résultats de l' élection de 1963 contexte électoral contestation boobu fur yi amoon à l'époque des élections euh, législatives ak présidentielles ñu xamal ne Senghor jël na euh, raw na jël na tous les suffrages xam nga loolu euh, dafa dafa doy waar. 100 cent. pour cent. Mm. waaw loolu nga def ko ci dëkk boo xam ne intellectuel la ñu de très haut niveau yoo xam ne yow ay ay ay say naataango la ñu yéen bokk niveau yéen a jàngandoo ci même université yi gënoon ci même université yi ah bokk dayoo xam loolu mënul jàll noonu hmm. loolu moo tax eh, jamono boobu bari na ay xët-xët. waaye comme ñoom itam koo ci gis rek dafa am dimension homme d'État dañu nekk ay kilifa yoo xam ne yii dafay am fu ñuy yem ci seeni wax ak seeni bëgg-bëgg ak lu ñuy xëcc ku mel ni Senghor ku mel ni Mamadou Dia ku mel ni euh, ñoomin Ablaye Ly ku mel ni Cheikh Anta Diop génération boobu ay ay ay kilifa lañu ay mag lañu ay homme d'état lañu hmm. am na fu ñuy yem danañ xëcc danañ wax waaye seen diine seen gëm-gëm ak seen humanisme dana tax ba am na fu ñuy yem ci mbir mi waaw li indi soppeeku rek moo di mille neuf cent soixante huit soixante huit moom beneen génération la. Hmm. mu di ñun suñu génération ñun ñun nii ñoon mhm. ñoomin Ablaye Bathily ñoomin uh, Landing Savané Mamadou Diop Decroix ñoomin Mamadou Wane Mao eh, suñu génération boobu ñun ñoo génn mille neuf cent soixante huit indi lu bees loo xam ne li bokkul ak suñu baay yi ñoomin Senghor ak ñoomin Mamadou Dia ak ñoomin euh, Ablaye Ly ñoomin euh, professeur Cheikh Anta Diop ñoom ak ñun bokkuñu ñun ñoo gën ñoo ëppoon radicalité hmm. ñun mouvement contestation sociale bu ànd ak violence bu mat sëkk la indi woon bu ànd ak violence bu mat sëkk la ñu indi woon hmm. ñun daan daa yore ay ay ay ay ay cocktail molotov ñu tuddee ko ah ay incendiaire di ko sànni hmm. waaw ah mais di di di sànni ci ci ci ci kii ci alkaati yi hmm. <laughs> di sànni ci alkaati yi mais attaqué leen woon bien public ah déedéet déedéet ay bien public loolu moom xalaatuñu ko woon hmm. ndaxte ci ñun suñuy bàyyi yar nañu yar boo xam ne bi humanisme boo xam ne bii ak suñuy maam Euh, am na foo xam ne fa la ñuy yem ci mbir yi am na yoo xam ne yii euh, suñu xel du ci yàgg waaye nag tolloon nañ foo xam ne fii wóoroon ne bu ñu amoon les armes dañuy jël les armes daani le gouvernement jël pouvoir bi hmm. loolu dafa nekk option révolutionnaire de prise du pouvoir ndaxte démocratie bi amuloon permettre ay élection normale permettre créer ay parti ndaxte depuis 1966 bi ñu décidé le PRA Sénégal dugal leen ci biir PS ci dissoudre en 1968 CNTS UNTS plutôt Union nationale des travailleurs du Sénégal euh, waree dissoudre euh, CES le syndicat des enseignants du Sénégal dissoudre toutes les organisations démocratiques amul liberté de presse benn journal moo amoon mu di journal Dakar Matin voilà de sorte que rajo bi benn la woon mu di rajo Sénégal donc expression démocratique expression de la presse amuloon de sorte que ñun suñu idéologie moo doon prise du pouvoir par la voie révolutionnaire te nag dañoo tàggatoon suñu bopp itam ci wàllu wow lire toute la littérature révolutionnaire de l'époque mu di littérature bi nga xam ne jóge na Union soviétique littérature bi jógee Chine littérature bi jógee Amérique latine avec Fidel Castro ay Che Guevara fii Lénine fii Mao Tse-tung euh, fële Ho Chi Minh comment dire au niveau de du Vietnam gis li xew yi tam eh, eh, eh, Algérie avec le Front de libération nationale de sorte que violence dafa nekkoon un moyen historique boo xam ne bii doon na mën renverser les situations de fait pour prendre le pouvoir et mettre en place un nouveau système politique loolu dafa amoon nit ñi bindu ko xalaat ko ñi itam gëmmoon ko di ko pratiquer bu doon jox ay résultats moo indi ay révolution yu bëree bëri révolution yàgg na ci àddina bi c'est lié à l'histoire euh, de la lutte des classes diggante ñi am ak ñi amul diggante nguur ñi nga xam ne dañu nekk pouvoir absolu ak ñi nga xam ne dañu am ay aspirations à la liberté et la démocratie boo ko seetee France am na bëri na lool France mu di 1789 mu di 1791 euh, mu di 1848 nga seet euh, Angleterre moom itam depuis mille deux cent trente et cetera yooyu dafa yàgg dans l'histoire de l'humanité li ma la ko waxee rek mm-hmm. violence dafa yàgg ndaxte PGI bu di classe sociale yi dañu yàgg di xëccoo parti politique yi tam dañu yàgg di am expression de violence pour jël le pouvoir jël nguur gi pour exercer le pouvoir loolu mu nekk un contexte historique boo xam ne bi mm-hmm. euh, dafa yaatu ci addina bi waaye nag mbir yi dox na dox dox dox dox dox dox dox dox ba yooyu wàññeeku mm-hmm. ba yooyu wàññeeku mën ñu wax ne que dañ na totalement hmm. waye wàññeeku na lu bari bari bari hmm. violence boobu moo tax ba sengoor eh, jóge fi en mille neuf ndaxte toogoon na moom ba xam ne que dëkk bi doxatu lool gis na que la jeunesse de mille neuf radicalisée ñun ñu diw ci quartier di former ay comité révolutionnaire hmm. di former ay cellule di former ay ASC ñii dugg ci campagne bi di di former ay cellule paysanne ñii dugg ci classe ouvrière bi di di di di former mouvement ouvrier pour prendre le pouvoir di créer des syndicats mu xam ne dëkk bi léegi soppeeku na mu jox pouvoir bi Abdou Diouf dem yoonam kon loolu moom euh, lu amoon la bi Abdou Diouf ñëwee moom itam am nag li mu soppeeku indi ouverture démocratique en mille neuf cent soixante quinze ak euh, comment dire euh, waaw kooku déjà euh, depuis Senghor la sax donc loolu moo wéy bi Abdou Diouf ñëwee daal def ouverture démocratique bu gën yaatu parti yi génn waaye ba tey itam nag élection yi amul ci benn boo xam ne bi tegu na woon ci yoon hmm. ba 1988 gis nga li fi xewoon 88 événement yu garaaw a garaaw moo fi amoon hmm. man fàttaliku ba koy am na ay décès yooyu waaye étudiants yi ñuy jógee partout dans le pays et toute la jeunesse les partis politiques fekk itam mu prolongé ba 1989 avec les événements de la Mauritanie mm-hmm. dëkk bi dafa nekkoon ci benn violence benn terreur boo xam ne bi mosu ko xam mm-hmm. événement Mauritanie yi nag nga gis li xew. te boobu tam dañ doon ñaawlu résultat présidentiel ñàkk cee ànd. kon toujours problème bi ci élection la jóge voilà 1988 euh, li fi am mus fi am hmm. mus fi am ndaxte moom euh, dañoo sàcc sàcc sàcc sàcc sàcc sàcc ba Majmout Diop <laughs> nee na moom li ko jaaxal bureau de vote bi nga xam ne moom fa la moom ak jabaram ak doomam mu am fa zéro <laughs> mu ne waa lii naka la a amee te boobu Abdou Diouf sax reconnaître woon na euh, que ah. am na ay irrégularité bu ñu ci sa ci sa chapitre justement nguur kenn du ko ñadd bi muy exactement mm. moom ci boppam toog da ba wax loolu sax mm. def ci sax ànd ak rus ak kersa def discours boo xam ne bi à 3 avril ndeysaan regretter tout ce qui s'est passé et de tourner page mm. parce que yenn yi itam da ngay mën a reconnaître Abdou ah, Diouf reconnaître na erreur yooyu parce que du moom peut-être personnellement directement mais ñu ko wër la nguur boo ko yoree ñu lay wër dana la def looloo xam ne yii yow do ci ànd dan lay foog ne dan lay defal waaye dan lay yàqal hmm. parce que abdu Diouf mi ñëw amoon na image bu baax d'un grand technocrate d'un bon nationaliste koo xam ne kii am na dimension d'état boo xam ne bi amoon nañ ci moom yaakaar mu indi ay euh, euh, lutte contre l'enrichissement illicite indi les états généraux ba ni amoon yaakaar ci moom waaye mujj bi les plans d'ajustement structurel ni mu ko banque mondiale FMI internationale tax na ba moo la tuloon diriger dëkk bi garab yi bari nañu contestation mouvement étudiant contestation mouvement syndical travailleur yaa ngi fàttaliku waa ULSAS yaa ngi fàttaliku waa SUTELEC yaa ngi fàttaliku toutes les grèves yi am sous le régime du président Abdou Diouf moo continuer ba daane ko en l'an deux mille indi indi l'accession du président Abdoulaye Wade au niveau du pouvoir donc violence moom yàgg na ci réew mi violence yàgg na ci réew mi violence électorale yàgg ci réew mi waaw waaye li xew yi moom moom defe naa dafa nekk un phénomène wax ne qu'il faut étudier à part. Hmm. bala ñuy ñëw ci tey après 88 am nañu tamit période bu euh, critique mooy 93. élection présidentielle woon également mu jur euh, lu mel ni génnuk àdduna maître Babacar Seye kon bu ñu sukkandikoo euh, euh, professeur euh, ci xëy na soixante quatre-vingt-huit soixante-huit mouvement révolution peut-être sociale la woon mais quatre-vingt-huit ak li ci topp yépp kon réew mi daal ay élection ak 63 élection yàgg na ko yëngal yàgg na koo yëngal yàgg na ko yëngal bi ñuy rey maître Babacar Sèye itam gis nga c'est toujours affaire élection tout à fait 93 ci jàppee euh, comment dire tëj ci le président Ablaye Wade incriminé ko euh, rey nit koo xam ne kii un un haut magistrat ndeysaan euh, euh, loolu dafa nekk ay ay ay ay vices du système démocratique dans le pays dafa la woon nekk démocratie bi doon laaj amoon na ay rëq-rëq amoon amoon na li ci des waaye nag euh, ñin ko seqal itam Abdou Diouf itam euh, amoon na ci itam tristesse ci la ñu aussi def ay changement parce que comme ni ma la ko waxee rek yenn yi bu amee boo jiitee da nga war a taxaw nga mën a changer mën a xam ni ñuy wax lan la indi ay soppeeku mm-hmm. donc. Euh, loolu moo indi par la suite euh, réforme yu am sur le système électoral le code électoral consensuel et cetera bon loolu moo indi aussi le départ du <laughs> président Abdou Diouf en l'an 2000 parce que bon mouvement social bi gën na ñor nit ñi gën nañu yeewu les citoyens gën nañu euh, am conscience gën a taxaw voilà loolu moo indi changement yi en l'an 2000 mu nekk itam une, une première dans toute l'histoire de l'Afrique, mm. n'est-ce pas Mu nekk la première alternance démocratique au niveau du, continent africain. Mm. alors euh, bu weesoo yooyu élection euh, nga xam ne moom moo yëngal Sénégal euh, professeur ñu taxawaat tuuti ci mai 68 est-ce que yéen bi ngeen di sumbu xeex boobu wax nga ne seen génération la yow ak ñi nga bokkal jamono dafa am benn fait politique bu ko jiitu. mu mu mu mu mu yëngal ka ngeen sukkandiku ci wala leneen moo leen taxoon jóg pour ñu xam effectivement est-ce que bu weesoo politique ak élection am na leneen loo xam ni mën na yëngal réew yu mel ni sunu bos. 1968 xam jeunesse ak jeunesse du monde moo ñoo yeewandoo hmm. ñoo yeewandoo contre la bourgeoisie partout dans le monde et mu am itam de la grande révolution culturelle de Chine hmm. loolu bu ko fàtte mukk la grande révolution culturelle de Chine de 1966 dafa am impact politique et idéologique sur toutes les jeunesses du monde dans toute l'intelligentsia du ni mu amee révolution yi ni mu réussiree ak euh, enseignement yi mu am dafa am impact partout dans le monde de sorte que euh, dafa am benn effet de contagion révolutionnaire mooy yëkkati ñu bari plus nag ci biir loolu ci Sénégal euh, étudiants yi amoon ay problème de bourse ñu war a dagg seeni bourse waaw war war di dagg ci bourse yi wàññi bourse yi waaw Euh, euh, ministre yi ñoom di am li ñuy am député yi di am li ñuy am classe ouvrière yi ñu am ay revendications syndicales euh, ñun boobu temps ñu naan élève la ñu avoir en face de nous ay ay professeurs tubaab yoo xam ni vraiment ñi seen xam-xam demeewul noonu ñii indi ay racisme ci diggante yi de sorte que mécontentement bi dafa yaatu woon dafa yaatu woon. Mm-hmm. donc bari na woon ay cause de sorte que euh, pour ñun ak toutes les jeunesses du monde li ñu le grand soir est arrivé la révolution jot na hmm. pour renverser la bourgeoisie et mettre le pouvoir des ouvriers <laughs> et mettre ñoo sonnoon ah liggéeykat yi ñoo mais liggéeykat yi la classe ouvrière hmm. xam nga l'histoire du monde dafa nekk une histoire boo xam ne bii la classe ouvrière daf ci am lu mu ci liggéey lu bare bare bare bare bare toutes les grandes révolutions du dix-huitième siècle dix-neuvième siècle et du vingtième siècle classe ouvrière moom moo ko dirigé avec son avant-garde loolu moo continuer ñun ñu gëm ko ji ko itam ci dëkk bi dugg ci paysan yi liggéey ci biir paysans yi di leen former di leen entraîner ci même guérilla n'est-ce pas prise du pouvoir par les armes à partir <laughs> du monde des paysans ñun suñu théorie boobu encerclement des villes à partir des campagnes ñun noonu la doon xalaatee noonu la doon jëfee ba ñun boo amee vacance mais doo toog Dakar da ngay dem ci ab da ngay dem ci àll fa mu gë fa mu gën a sore di def intégration paysanne lekk li li paysans yi di lekk di nekk ak ñoom di waxtaan ak ñoom di am looy dugal seen xel di leen mobiliser di créer ay cellules ñu ci loolu la ñu mës a nekk hmm. ci loolu la ñu mës a nekk waaw donc 1968 loolu indi dans l'histoire de l'humanité maanaam éveil de jeunesse moo di jeunesse révolutionnaire nouvelle bu bëgg renverser le système capitaliste il est le système socialiste mm-hmm. parce que temps yooyu yëpp les idéologie dafa doon dox idéologie da doon def idéologie marxiste communiste da doon dox contre l'idéologie capitaliste l'idéologie bourgeoise ñun nous étions ñun ci li ci ñooñu la ñu bokkoon waaw ci biir nag am na ñoo xam ne ñii ñu ngi PAI ñii ñu ngi Ligue démocratique ñii ñu ngi mouvement de la jeunesse marxiste léniniste ñii ñu ngi parti communiste euh, sénégalais ñii ñu ngi ci mouvement trotskiste yi ñun ñëpp nag ñoo bokk même xalaat prise du pouvoir par la voie révolutionnaire par la voie des armes et par la violence révolutionnaire loolu moo doon xalaat bi en 1968 waaye nag loolu moom <laughs> ak léegi contexte bokkatul de contexte bokkatul contexte yi bokkatul. Mm-hmm. alors euh, professeur ñu ñëw ci li xew tey euh, jugi dem démb tuuti euh, noo jàngatee euh, crise politique bi Sénégal di dund depuis deux mille vingt et un presque mun nañ ko wax foofu la foofu la tàmbalee ba léegi bu dalee itam xëy na calme précaire la woon dal goo xam ni taxu ko woon doon lool ndax gis nañu après bi mu yënguwaatee nu mu mel naka nga ko jàngate situation bi. mais situation bi ñun liñu dal euh, vraiment lu lu lu métti la lu métti la loo xam ne lii mën nañoo ñàkk dal bu fekkee ne euh, ba muy yëngu nit ñi taxaw nañu euh, faj ko wax li ñu war a wax. jëf li ñu war jëf waaye loolu dafa amul ba muy commencé situation politique bi dafa commencé di di di yëngu seetaan li ko indi moo di problème mu troisième mandat du président troisième mandat wala troisième candidature du président Macky Sall opposition bi naan ko waxal ne yow doo présenté mu ne moom du wax bu jotee danaa wax loolu mooy indi wax bi moo indi crispation bi nee naa la li daa xew démb violence post électorale la maanaam dañuy dañuy woote ba pare ñu ne d'accord ñu ci résultat yi waaye lii dafa nekk violence pré électorale dara xewagul mu am ay violence waaw kon bu élection yu amee <laughs> lan lan moo nar a am après les élections lan moo war a am wax bi foofu la nekk. kon loo looloo ko wutaleeg yeneen crise yi weesu. amul benn boo xam ne avant élection la Moussa am yëngalee. ah déedéet ah, avant élection yi am rek effervescence hmm. les les esprits dana échauffé wu waaye du ñu jàppante. ndaxte dara xewagul waaye fii dañ ne dañ ne président Macky Sall yow waruloo présenté wu moom mu ne waxaguma ne danaa présenté wala duma présenté mm-hmm. waaw loolu il se war a war na indi histoire il se war na indi xeex loolu mooy problème bi. mais est-ce que du ci wet gi dafa def lu wone ne dafa bëgg a doon candidat. mais même loolu bu ko wonee mu ko wone wax bi du loolu. Hmm, wax bi la. parce que man dama wax ne suñu mbokku intellectuels yi hmm. am na ci benn grande part de responsabilité. ci naka. Ah, ñi bind constitution du Sénégal ñi ko bindoon avant taw Ablaye Wade amoon nañu responsabilité bu mag a mag a mag a mag a mag dans le flou juridique bi taxoon ba président Ablaye Wade war a bëggoon a changer constitution bi du ut troisième mandat xam na leen ce sont nos amis ce nos camarades ñun ñoo jàngandoo ak ñoom on a fait le mouvement de la gauche bëgguma tudd turu kenn mais xam nañ leen les des collègues des amis qui sont euh, euh, de l'université constitution boo ko bindee mu leer nañ amul ambiguïté hmm. mu nekk un texte univoque nga xam ne amul nan la koy interprété lii mais problème du am ñu ko doon bind mbind mi des na te jamono wax nañ ay wax yoo xam ne wane na naka eh, ñu ko waroon a bindee des na lii itam bi changement yi amee ni mu amee gis nañ ko mu nekk loo xam ne lii lu doy waar benn nit di ko bàkkoo moom ci boppam naan moom moo bind constitution bi mais loolu dafa garaaw en tant que intellectuel ak sa jàng lu mu féete féete féete kaw ak loo jàng jàng jàng jàng responsabilité bu mel noonu mënuloo ko jël en tant que une seule personne nga nekk dans les milieux universitaires am ay collègues ngeen di xëy di wàccandoo nga war a am responsabilité yow kenn war a di bind un texte juridique de dimension nationale mais porter une lourde responsabilité dans les lacunes de cette constitution là ba tax na nit ñi critique bi ñuy def dégg nga ko c'est le tailleur de Macky Sall hmm. le tailleur de Macky Sall dañ ko taillé benn constitution sur mesure mais loolu gàcce la pour un intellectuel nga xam ne da nga jàng ba am au niveau de agrégé war a am sa probité intellectuelle war a am sa personnalité mm-hmm. waruloo di def yen yi mm-hmm. loolu ñu war ko mën a ñu dégg ko débat bi mu posé woo gis nga ñu jóg di wax Zouanka moo jëkk a wax moom li mu gisee texte bi hmm. président Macky Sall war naa mën a présenté wu. Hmm. amoon na ay brèche yu ñu bàyyi. am na ay brèche ndaxte texte bi dafa amul benn euh, clause boo xam ne bi dafa explicite explicite ne mandat bi bokk na ci wala premier mandat bi bokk ci comme amul clause de sauvegarde boobu bu exclure wala bu ci dugal premier mandat bi li fi des moo de interprétation interprétation nag bu amee kii de interprété dans son sens kii day interprété mooy itam dans son sens dégg nañu euh, Serigne Diop éminent professeur juriste Euh, dégg nañu itam euh, Ndoye ancien ministre euh, de la justice Doudou Ndoye moom itam éminent juriste dégg nañu ñeneen dugg ku mel ni Kader Boye mais ñoom je les cite ndaxte c'est des professeurs émérites sont des hommes d'expérience qui ont vécu le mouvement social sénégalais, qui connaissent euh, xam nañu dëkk bi nu mu taxawee waroon nañ mën a taxaw expliquer mu leer nañ waaye waruñu am un langage boo xam ne dafa am ambiguïté buñ nee ne kii ni ñu ko bindee texte bi mën na am interprétation dans le sens que waa ji mën na présenter wu wala ñu ne kii euh, présenté bi bu ko defee itam am na ay conséquences yoo xam ne conséquences négatives la kon na bàyyi loolu bu ñu ko waxee mu leer naññ dana tax Macky Sall xam moom fu mu war a li mu war a def waaye kenn mënu force Macky Sall na ko waxal waxal moom kenn mënu ko forcer waaye kii ñëw taxaw na ko yow waruloo présenté wu moom fan la ko war a teg hmm. ci interprétation rek du texte ay amul benn droit ki nga xam ne moom moo habilité pour ne war nga présenter wala par war nga présenter moo di le conseil constitutionnel et mhm. le conseil constitutionnel n'est pas encore saisi mhm. kon nag xuloo bi mënoon na ñàkk mhm. fekkoon ne mag ñi nga xam ne ñoo seq le droit sénégalais ñoom ñëpp éminent juriste waxoon nañ ne texte bi ci boppam moo am ambiguïté boo xam ne bii moo indi interprétation dans un sens ou dans un autre bo wa bu ñu waxoon loolu dana tax Macky Sall xam moom li ko war dana tax itam keneen ku mel ni Sonko xam moom itam li ko war dana tax ñi nga xam ñoo nekk ci opposition ñoom itam ñu xam li leen war xam fi mu war a yem ci mbir mi ñàkk a wax loolu ba mu am ci biir ñoo xam ne ñii ku mel ni euh, le professeur. Euh, euh, Euh, Diouf Makhtar Diouf di théoriser le, le droit à la désobéissance civile mm. mais loolu dafay ajouter encore à la situation on n'a pas besoin de ça désobéissance civile fa mu amoon c'est dans un contexte boo xam ne bi les droits des noirs étaient violés mais c'est pas le, c'est pas la, la, la même situation ici dans ce pays-là nañu wax nit ñi dëgg yi wax kii ne ko waruloo def lii yemal foofu waaye keneen ki itam mu di Sonko wax ak moom mu xam fi mu war a yem hmm. Sonko amul droit attaquer les institutions de la République amul droit attaquer les personnalités de la République amul droit yëkkati di wax appeler à la violence amul droit euh, euh, euh, appeler naan dañuy rey Macky Sall wala Macky Sall rey ko wax boobu dafa amul benn sens li mu wax yëpp droit à la résistance dafay faire que crisper la situation. Hmm. mais est-ce que professeur euh, problème bi dëgg-dëgg weesuwul mbirum ñetteelu candidature parce que ñu bari ñu ñuy dégg ñuy wax mooy dañu naan du ñu seetaan ñu faagaagalat beneen adversaire politique ñuy jël sax référence ci mbiram Karim Wade mbiram xalifa sàll jàpp ne daal ku dem xëy na ba mu xaw a leer ni yow boo demee président actuel bi ci euh, élection rek mën nga koo yóbbu deuxième tour wala nga gañe ko dañuy xool nuñ la sàkkale pexe est-ce que du loolu véritablement moo nekk problème bi tey euh, bu weesoo ñetteelu candidature parce que ñetteelu candidature bi lu ñu mën a wax président Macky Sall waxagul euh, dara leeraguñu ne dafay présenté wu mais est-ce que problème bi nekkul feneen kon la wax noonu. mais xam nga wax wax boobu moom ça n'engage que les auteurs. Hmm, gisee woo ko noonu yow situation bi. déedéet c'est-à-dire que ñoom loolu la ñuy wax. d'accord mais nañu wax boobu. Hmm. ndaxte euh, euh, Khalifa Sall moom il a été victime d'un système. d'accord ku mel ni Khalifa Sall intégrité morale ak intellectuelle kenn mettre ko en doute. Hmm. mais il a été victime d'un système qui a mis en place par l'Union progressiste sénégalaise. du temps qu'il avait le pouvoir absolu à la mairie de Dakar et dans tous les pays di def lu ko neex di joxe ay bourses di nommer des gens comme il voulait utiliser les ressources de la municipalité moom Khalifa Sall bi mu ñëwee loolu la fa fekk loolu la wéyee loolu la continuer mais muy sa personne kenn métu ko aw doon mu nekk une faute ba loolu di laata am dégg nañu Mbaye Ndiaye jël deux fois mu wax ci rajo yi mettre ko en garde ne ko yow ñun ñoo la teg fii mënuloo donc nekk un opposant à nous te sa gestion bu ñu ko seetee am na ay erreur ndaxte ñoom ñu ngi woon dans le conseil municipal xam nañu waa ji li muy doxalee ak li mu dul doxalee donc il y une mauvaise gestion mu am ay ay factures mu am ay yoo xam ne yii c'est c'est c'est condamné par la la gestion loolu loolu lañ ko jàpp bu defuloon loolu duñ ko jàpp ci loolu. donc il n'y a pas de fumée sans feu boo defee yenn erreur ne c'est adversaire politique mais dans les dañ ciy profiter c'est ça qui est arrivé mhm. et et a été monté et développé par Mbaye Ndiaye qu'il m'excuse de le citer mhm. il l'a dit il l'a répété en son temps à l'époque Karim Wade moom itam bon moom c'est un autre cas c'est envoyé nañ ay commission rogatoire sur le plan international fu nekk dem la lam nañu xool nañu gisuñu dara mais n'empêche condamné nañ ko hmm. sur quelle base waxuñu ko ba léegi hmm. ça prend des allures d'un règlement de compte politique entre le fils euh, biologique et le fils putatif Macky li ko daane loolu c'est l'affaire de euh, Karim Wade bi mu ko bi ak le papa ak ak ak Ablaye Wade bi loolu amee moom euh, Karim euh, jàpp nañ ko condamné nañ ko euh, gracié ko génn ko ci réew mi loolu c'est un précédent politique très grave mu di une erreur grave du président Macky Sall mm-hmm. plus nag erreur yu ci tegu yeneen erreur mooy le parrainage yeneen erreur yi moo di touché à la carte électorale du pays la question des cartes d'identité nationale yooyu yëpp mu am ay manipulation et tripotillage yoo xam ne yi tax na ba élection ni mu waroon a demee mënatu ko demee loolu dafa déréguler le système démocratique dans ce pays-là tax na ba effectivement ñi am tiitaange ne kon ci ñun jëm si waaye boo amee yow yaakaar fexeel ba yow boo def loo xam ne lii mën na la ci jàpp fexeel yow ba nga éviter loo xam ne lii yow <laughs> yow kenn la ci jàpp hmm. parce que loolu yow boo la mën a sawee. bañ a prêter le faut pas prêter le flanc c'est exactement la question. comment les adversaires politiques utilisent yow say erreurs. pour daane la mais c'est de bonne guerre mais en France Dominique Strauss-Kahn mais il était parti pour être le président de la République au niveau de la France lan moo ko daane une affaire de viol mm -hmm. il est tombé nga euh, aux États-Unis Bill Clinton en le moment une impeachment pour daane ko les questions de vol les questions de mœurs Mm. Mais c'est des question politiques qui se posent. Mm. De sorte que eh, l'homme politique am na lu ñuy séntu ci moom am na lu ñuy yaakaar ci moom war na set setaay boo xam ne bii doo ko dégg ci yenn yi doo ko gis ci yenn yi ba ñu ko ci mën a indil tuuma dans un sens ou dans un autre. ba muy yëngal réew à ce point. ba muy réew à ce te nag bu loolu amee. nga war nekk un républicain bu la woowee nga war a répondre à la convocation boo complot tu as le de dire que c'est un complot mais viens démontrer que c'est un complot devant la justice et devant tout le monde dana woon wàññi wax yi dana woon wàññi bruit yi dana woon wàññi manifestation yi ci réew mi bu la tuuma laa daal yëkkati tuuma bi nga takku fële mais il faut le démontrer ñun li ñu doon jàngal à l'époque moo di utiliser le procès politique à des fins politiques ñun à l'époque da nga daa fexe yow ba ñu jàppale nga ñëw pour def le procès politique du régime de Senghor pour def le procès politique du régime de, du président Abdou Diouf ñëw taxaw moom face à face dénoncer carrément les atteintes à la liberté montrer carrément ce qui s'est passé Et ce combat politique, il fallait le faire au niveau, au de la justice. C'est ça qui n'a pas été fait. Mm. Et c'est ça qui est triste. Et pourquoi les magistrats n'ont pas accepté de visionner les vidéos de la partie civile ah, Est-ce que vidéo amna ah euh, il est euh, euh, ah loolu weddi ko de. ah kon nag en tout cas wax nañ ko. loolu ah weddi nañ ko de. ah buñ ko weddee de kon benn wax benn benn wax la mm-hmm. waaw vidéo yu am wala mu ñàkk am li tubaab naan il y a pas de feu sans fumée il y a pas de fumée sans feu. de fumée mm-hmm. que la am dafa honoré la classe politique mm-hmm. waroon nañ mën ñëw ñu woo nga ñëw taxaw. laale yow sa sa sa dignité ba mu set wicc montrer sur le plan politique ce qui s'est passé dans ce sur le plan politique que tout le monde sache et voit ce qui s'est passé sinon weddi comme ça le complot politique là ça devient très simple voilà et finalement <laughs> la magistrature aussi n'a pas aidé le la population à comprendre mmh. en glissant euh, d'un viol à corruption de la jeunesse. tout à fait yëf yi dafa gën a lëndam ci ñu bari. dafa gën a lëndam. où tu dis le droit mu leer naññ. Mm-hmm. pour toujours. Ah, wala nga bàyyi. wala nga bàyyi. Mm-hmm. et quand tu ne dis pas le droit mooy indi loo xam ne yow da ci am responsabilité directe. dëgg Et c'est ça qui s'est passé malheureusement. Mmh. Moi, je que quand j'analyse le phénomène de ce qui s'est passé ces deux dernières années, ces jeunes-là qu'on qu tue dans les manifestations, moi, ça me rappelle les événements de Charteville, mhm. les événements de Soweto, du temps de la lutte contre l'apartheid. sont des jeunes de rien du tout, population des ghettos, population qui n'ont rien, qui se levaient contre le système de l'apartheid, le système injuste de la discrimination raciale. Ce sont ces jeunes-là que je vois à travers là, qui se font, qui se font tuer à Bignone, qui se font tuer à Julien Chor, qui se font tuer aux parcelles Asseni, qui se font tuer, à, euh, comment dire, euh, à, à, à sont même pas des électeurs, mais ils ont un sens. Il est contre l'injustice sociale. Ils ont un sens. Il contre la discrimination, contre la politique de deux poids, deux mesures, et qu'ils dénoncent, qu'ils vivent comme étant de l'injustice sociale. La force de Sonko, mais c'est ça. Parce qu'il y a un mouvement de mécontentement, il y a un mouvement de révolte sociale qui fait qu'il a un discours, les gens s'identifient à lui comme étant quelqu'un qui va les sauver de la situation. C'est ça qui fait sa force. Mm. ces gens-là ne lui demandent rien, euh, sinon euh, euh, contre l'injustice sociale, cette injustice qui est, qui est manifeste. Mmh. Cette injustice qui est politique de deux poids, deux mesures, personne ne peut l'admettre. Cette politique qui consiste à tripatouiller la Constitution, mhm. à mettre en place un système de parrainage discriminatoire, à, à caser ces hommes et à s'attaquer aux autres, mais personne ne peut donner crédit à cela. voilà professeur quel que soit par foofu sax laa bëggoon ñu jeexalee fa est-ce que ñàkkum démocratie bi yëngaloon réew mi démb nekkaatuñ ci tey bu ñu xoolee lii xew yépp euh, ku wax peut-être ñu jàpp la euh, yenn chaîne de télévision yi wala presse bi ci boppam mel ni ku ñu tënk euh, yooyu wone ak yoodul wone dañ koy dañ koy sàkk dañ koy limité est-ce que nekkuñu di dellu ci ñàkkum démocratie bi yëngaloon Sénégal démb ba peut lu mel ni xewoon fi doonte. xëy na amul woon ampleur bi mu am tey. xam nga nag démocratie moom ce n'est jamais dans l'absolu. effectivement c'est des avancées et c'est des reculs. Hmm. tout le temps da xeex. tout le temps da pour perfectionner la démocratie. ak du looy am rek mu jeex. parce que le pouvoir a toujours tendance à se recroqueviller. Hmm. les populations ont toujours tendance à demander beaucoup plus de liberté. a demandé beaucoup plus de d'expression démocratique, mm. a demandé beaucoup plus sur le plan social et donc à faire avancer le système démocratique. Mm. Il n'y a pas un système démocratique qui soit statique. Et tu as vu ce qui s'est aux États-Unis. Mm-hmm. N'est-ce pas? wolof wolof professeur. ah. <laughs> Eh, États-Unis gis ah diggante bàyyi daan ak Trump ni ñu daanelee Trump Trump ñëw ah, di attaquer ah, comment dire ah, le parlement ba ñu ko bu ñu ko attaquer sur le plan justice pour un pays boo xam ne bii ñoom dañoo jël dañu jël ay gànnaay xeex xeex pendant cinq ans six ans mettre un système démocratique boo xam ne bii c'est peut-être la démocratie la plus achevée dans le monde ñoom ñoo vivre ce phénomène là nga comme la France les gilets jaunes da yaa ngi leen di gis ñuy manifester mm-hmm. manifestation yu gën am fii au Sénégal mm-hmm. détruire carrément les mêmes manifestations yi am France mm-hmm. di lakk di brûler di xeex ak alkaati yi gis nga sax léegi li utiliser ils utilisent maintenant les excréments contre les forces de l'ordre Parce que, mais c'est dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que <laughs> les, les, peuples et les populations, nous avons dû, réagir à chaque fois que nous avons une injustice, à chaque fois qu'il y a, nous laissé nos droits, faw di jóg pouvoir yi moom bu toogee rek dafay bëgg di Euh, am jàmbam hmm, am pouvoir du seet li seet nag ñii ñi ñoom ci li ñu nekk lan la. Hmm. mais tey yi boo gisee Sénégal yi ñi ñuy mais dund bi métti hmm. xale yi liggéeyu ñëw ah bu ñu liggéeyee liggéey bi demeewul noonu donc mu nekk ay problème xam yoo xam ne war nañ koo régler nga gis euh, euh, comment dire étudiants yi condition de vie yi ñu nekkee dramatique di am bourse bariwuñu boo jàngee boo génnee du du la mën a casé mu nekk les véritables problèmes nga xam ne war nañ ko régler dans ce dans ce pays là mm-hmm. waroo ci donc yokk ci xar mi ay karaw mm-hmm. di def loo xam ne lii yow dana tax doo mën a am confiance population bi mm-hmm. tey jii ce qui arrive au président euh, euh, Macky Sall mais c'est triste nañu góorgóorlu il fait il mobilise beaucoup de ressources ini ci pays bi mi ngi construire TER am na euh, BRT am na euh, stade Abdoulaye am na ñu ngi préparer ay jeux de euh, olympique et cetera et cetera yooyu yëpp baax na waaye nag le contrat moral bi nga xam ne moom la population yi il a trahi ce contrat moral hmm. cette confiance n'existe plus et depuis longtemps ba mu commencé di wax di waxeet di weddi lii xew par rapport euh, bi mu bindee donné son accord aux conclusions euh, des assises la ñu ci assises yi régime reprendre les élections defu ko mettre en place un système parlementaire defu ko liggéeyloo le professeur euh, émérite Amadou Mokhtar Mbow avec la CNRI mm. ñu def ay proposition war a ko mën a appliquer appliqué wu ko mais loolu fa la perdre la bataille de l'opinion mm. fa la perdre la confiance des populations mm. fekk nag population yi sonn ba naan dëkk bi dafa makki loolu moom moo ko desservir durant tout son premier mandat mm-hmm. de sorte que lu mu bëgg a def tey ak lu mu wax ak lu mu mën a hmm. duñ ko gis plus nag di mujjee mooy ni mu def euh, ancien premier ministre Mimi hmm. mu nekkaat benn erreur bu garaaw boo xam ne bi daf ko yokkal ay noonam ci dëkk bi hmm. kon nag moom war na xam ne <coughs> jeexal na jeexal na ci nii jeexal na ci naa waaw na indi jàmm ci réew mi nee leen mi ngi dialogue mm. nee leen mi ngi dialogue na dialogue bi continuer mm. te am na te am njëriñ am finalité nag mm-hmm. ndaxte wax wax wax wax wax wax rek mm. nit ñi doy leen nañ ci wax yi baax na jërëjëf. jërëjëf professeur Mansour Aw eh, di historien nekk itam jàngalekat bindkat ñu ngi lay gërëm bu baax a baax ci waxtaan wi leeral na lu bari loo xam ne xëy na démb fekkee wuñu ko woon ay crise politique yu senegal joto dund nga def ci gëstu bu am solo ci sa téere eh, beral ko nag eh, pàcc bu ñu tuddee nguur kenn di ko ñadd ndax ñaddu nguur ñaare dafay yëngal réew ñàkkum démocratie bu nuru jëm ci ñaddum nguur itam dafay yëngal réew ñu ngi lay gërëm doon teewlu gërëm jaaw jàllu mi nekkoon ci jàppandal gi Fatou Thiam Ngom la woon ci euh, kàddu gi émission bi mun ngeen ko teewluwaat ci suñu chaîne euh, YouTube Rewmi TV officiel ñu ngi leen di ñaanal yendoo jàmm jërëjëf professeur Mansour Aw jërëjëf Fatou